depuis voilà j'ai pas euh, remarqué loolu moo tax sinon kon ñu gën a yàgg ci yéen kaay mais ñaareelu pàcc. waaw ah, yaa ngi ma doon pressé moo tax ma daal di a gaaw. damaa foogoon ni damaa foogoon ni on avait <laughs> une vingtaine mais bon <laughs> euh, ci ñaareelu pàcc bi ci kanam incha allah El Hadj dina ko euh, gën a yaatal moxtaa la ñu wax ci euh, actu commenté bi muy baisse des denrées de première nécessité annonce bi nag def nañ ko ni ki démb suma ma juumulee talaata sax la war a nekk en vigueur wala am na leneen luñ ci mën a yokk. après la tabaski lay entrer en vigueur. mais ñu wax rek que ni. Euh, coow li bari na lool ci mbiru wàññi ceeb bi ñenn wàññi wàññi dund bi de façon général euh, ñenn ñi ni dafa xaw néew li ñu wàññi ñenn ñi ni bon c'est un premier pas. il faut saluer ça mais man dama jàpp ni. wàññi moom euh, ak nu mu mën a mel. vraiment lu am solo la. parce que au moins. gaf ka góorgóorlu bi mhm. au moins bu doon cent francs sax dina fa des mhm. wàññi pour man moo ma gënal euh, ñu yokk ba mu gën a sonal euh, góorgóorlu bi mhm. pour man déjà ñu wàññi loolu pour man mesure bu ñuy saluer la mhm. maintenant nag euh, application bi mhm. euh, foofu la ñuy xaaree mbir yi parce que ñu fàttali ne rek euh, novembre deux mille vingt deux mhm. Macky Sall ba muy jël onze mesures yi pour wàññi dund bi ñëpp ñi ko doon xaar naan dañuy appliquer prix yi mais gis nga après fu mu mujjee boo seetee sax moment bi muy wàññi tey riz brisé ordinaire bi ñu wax par exemple ñu euh, ngi ko doon jaayee trois cent vingt cinq francs le kilogramme. Mhm. mais moment boobu damoon na ba nekk ci prix boobu trois cent vingt cinq francs le kilogramme. Mhm. Euh, tey jii wàññi nañ ci euh, quarante francs. Mhm. muy juróom-ñetti dërëm. te teewul. yeggul trois cent vingt cinq francs. donc c'est toujours supérieur à trois cent vingt cinq francs bon maintenant nag li ci des mooy. gouvernement bi am na ay jumtukaay yu mu jël pour jéem a fexe nu ñuy fexe ba spéculateurs yi mooy ñi nga xam ni commerçant yi nga xam ni ñoom kenn mënul fexe ba ñu respecter euh, maanaam prix yu ñu fixé ñooñu moom gouvernement bi nar na jug seen kaw parce que li ñu bëgg créer déjà pour man te Amadou Al Amin lu wax na ko muy les boutiques témoins mm-hmm. je pense même bu nu dellu suwaatee Sonadis ce serait pas mal parce que pour man boutique témoin yi moo mën a tax euh, ñi nga xam ni dañuy spéculateurs yi ñu mm. bàyyi di euh, jaaye euh, prix bi lu ñu homologué mm-hmm. parce que prix yu ñu homologué boo ko jaayewul rek da ngay lor askan wi te pour man il faut ñu vraiment ñaax mm-hmm. commerçant yi mm-hmm. ñu jéem a seet yàlla ci li ñuy def également parce mm-hmm. que di fixer ay prix à chaque fois ñoom it ñuy tëralee muy jaayee ñuy jaayee lu mu leen neexee mm-hmm. loolu pour man gënul ci askan wi gis nga mm-hmm. déjà li xew ci tabaski bi gis nga ni ñu yokk prix yi mu passé du simple au double euh, ba finalement ñi ñibbi yépp seeni dëkk yi dañoo am njàkkare parce que tout simplement prix yu jéggi dayoo la ñuy teg ci kaw askan wi pour man nag nit ñi il faut ñu delloo si waat seen xel parce que mesure bu gouvernement mën a jël wala mesure bu autorité yi mën a jël te mm. nit ñi ci terrain bi amuñu euh, lu nuy euh, seet mm-hmm. ci ni ñuy doxalee ak askan wi pour man du mujj fenn mm-hmm. te pour man nit ñi war nañu delloo siwaat seen xel par rapport ak ak loolu mm-hmm. fi mu ne nii nag euh, ci dund bi toujours démb ñi ngi ko doon wax naan Euh, transparence bi nga xam ni euh, la président Diomaye jël na ko pour indi ko ci mbiru foncier bi maanaam fexe ba mbiru suuf du nekk benn nit mooy accaparer ay cinq cent hectares di ko séddale di ko jaay ni mu ko neexee wala muy tabax di louer mm-hmm. mais ni mu def par exemple mbuurkat ni da ko jox ay euh, dison ay yeneen promoteur mhm. pour ñu jéem a seet nu ñu tabaxee ba nit ñi mën ci jariñu mhm. suuf si ñu delluwaat ci askan wi pour man mhm. loolu aussi day dimbali nit ñi parce que bu fekkee da ngay yor sa xaalis di fayeeku sa xaalis te Eh, yaa ngi koy fay ay location mhm. yaa ngi koy jëndee ay crédit téléphone mhm. yaa nga ci euh, dison fay ay canal ak yu ni mel mhm. mu nekk vie boo xam ni da lay pour man après luñ la fay fay fay bon du du du am jeexital ci ci sa dundin te pour man euh, voilà nañu seet daal après euh, prix yi nan lañuy ñuy fexee ba appliquer ko incha allah waaw waaw El waaw euh, déjà euh, di jaajëfal ñi nga xam ne ñooy njiit yi ndax promesse la bu nga xam ne dañu ko waxoon askan bi ni bu ñu ñëwee dinañu wàññi dund gi euh, waxoon naa fii ci ay jamono ni leen bëgg nañ ko waaye du yomb mhm. du yomb ndax dafa am ay réalité yu nga xamante ni boo bëggee wàññi di nga confronté wu ak réalité yooyu mhm. te loolu daf cee am moo tax waxtaan bi xawoon a jël tuuti temps entre état ak ñi nga xam ni mooy les vrais acteurs euh, pour ñu waxtaan ci njëg gu nekk nan lañ ko wàññee ak ci ban niveau lañ ko war a wàññee. Mhm. Euh, am na yu nga xamante ni ni mënoo ci agir à souhait état bi 53 milliards la jël injecté ko. Mhm. pour mën a sax wàññi yenn ci njëg yi. Euh, wàññi gi nag jarute xeeb. Mhm. ndax am na lu nga xamante ni ni bu ñu ko fellee. ci euh, njëgu euh, ceeb. am na ñu koy yëg. am na ñu koy yëg. moo gën boo ko waaw diwlin ji ñu wàññi ci cent franc. wax mm. dëgg yàlla am na ñu nga xamante ni bu ñu demee jëndi dinañ ko yëg. Mm. ciment bi am na lu nga xamante ni euh, dindi nañ ko ci taxi yi loolu yi tamit dina am jeexital ci njëg yi. Mm-hmm. loolu yëpp ay effort la yu nga xamante ni ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak mm. premier ministre Ousmane Sonko ak le gouvernement. def nañu ko. Mm-hmm. def nañu ko nag waaye du tere. ñu ni leen euh, waaw leen góor waaye bu gënee euh, euh, jàppandi yi tamit gën a baax mm-hmm. parce que yi tamit askan bi actuellement nii mm-hmm. wax dëgg yàlla seen gafaka woyof na mm-hmm. te loolu war na pousser un Euh, au lieu ñuy agir seulement ci prix yi nga xam ne dañ koy wàññi. Mhm. mais gën a xool aussi gafak nit ñi naka la ñuy def ba mu gën a oom. Mhm. parce que bu fekkee ni tey am nga un salaire décent bu ñu wàññee njëg yi. Euh, mhm. dina gën a neex ci yow même bu ñu ko wàññiwul it te sa salaire gën a yokk. dina am euh, dina am dina am njeexital bu baax. ci ci sa koom-koom. mais en tout état de cause daal li nga xam ne moom la ñuy wax mooy dañ leen di jaajëfal. mais nit ñi tey aussi xam ne yëf yi du ni ko démb lañ ko décider rek tey da ngay dem mooy li mu doon wax léegi ca borom bitik ba mhm. ni ko wàññi nañu da wàññi dafa am yeneen procédure mhm. yu nga xam ne moom moo ci am parce que CNC wu wuñ leen ci yëf yi mais tey mënoo leen a tëb jéggi ci application prix yi mhm. donc ñooñu foog nga toog waxtaan ak ñoom pour que les prix soient homologués mais buñ ko homologué ba pare soxna Faty leneen li ci des mooy Euh, euh, li ñu tuddee conseil économique euh, mooy li ñu tuddee contrôle économique mm. ci ay jamono wax naa ko démb mm. daf doon am contrôle inopiné mu am ay contrôleurs yu nga xam dañuy dem ci boutique yi masqué wu di laaj yow jaay ma kii loo koy jaayee boo kii ñu sanctionné la bu mm. fekkee da ngaa yokk donc contrôle yooyu il faut mu gën a tar sino boutiquiers yi toujours les clients selon à leur merci beneen bi nga xamante nii aussi moom moo ci des mooy boutique témoin yooyu nga xam ne wax nañ ko loolu am na solo ndax Sonadis amoon na fi am na tamit ci jamonoy Ablaye Wade euh, yeneen euh, boutique yu nga xamante ni defoon nañ ko ci koñ yi mais mbir mi dafa mujjul law. Mm-hmm. mais bu fekkee ni law na tey ñu am boutique témoin ñu homologué. Mm-hmm. nit ñi du ñu dem ci beneen boutique ba di fa jënd fa mu gën a yombe. Mm-hmm. moom la ñuy dem di fa jënd. kon loolu nañ ko nañ gën a yaatal gën ko baral te dina tax aussi ndaw ñu bëri ñu amul liggéey. ñu mën leen a yóbbu ci boutique yooyu ñu fay liggéey. donc yooyu yëpp daal ay mesures la yu nga xamante ni nii gis naa ñuy reetaan di wax ne njëg yi dafa ndaw ak lu ñu mel mm. mais euh, état nag du noonu mm. doo wàññee nu mu la neexee parce que dafa am ay réalité sur le marché national et international yi nga xam ne mm. mënoo ko jéggi mburu mi tamit il faut ñu wax mi parce que fédération des boulangers li ñu waxi tamit xel nangu na ko mënoo leen a ñu wàññi mburu te wàññi woo farine bi te blé bi nga xam ne moo ëpp ci li ñuy liggéeyee -hmm. dañ koy jëgaani -hmm. donc loolu aussi laajaat na waxtaan pour ñu a Euh, Cheikh en France sax Fatick soo ko wàññee. ci njëkk euh, c'est à saluer. Mhm. Euh, mais fii je pense que li am solo mooy li nga xamee ni moom mooy ñëw. parce que yëf yi jeexagul on a mm. annoncé mais am na ay waxtaan yoo xam ni mi ngi wéy ba léegi waxtaan yooyu euh, mm-hmm. naka lay sottee ci yan anam lay sottee maa léegi bi ñu mm-hmm. koy wax léegi fédération des boulangers ñoom ni nee nañu lii arrangé wu leen mm-hmm. comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ces à la hausse là c'est c'est après parce que suñu ñëwee fii ñoom tamit ñu ne ñu wax gouvernement bi foog nga wàññi farine ñoom tamit noo wàññi wuñ ko ñoom ñu continuer ci li ñu nekkee wala euh, ñu commencé teqaat poids mburu bi mu mu mu mu mu gën a woyof euh, gën a yooyu je pense que loolu côté boobu aussi euh, y a y problème moo tax fokk ñu xool applicabilité bi nan mm-hmm. lay demee ak mm-hmm. naka lañ koy euh, toppee parce que c'est pas la première fois Mor mi ngi koy annoncé sànq mm-hmm. mesures yi nga xamee ni nguur Macky Sall jël na ko fi bërki démb bi ñu naan dañuy wàññi gis nañ coow li mu fii jur commerçants yi nekk Sénégal bon bu nañ ma baal mais am nañu si si bëri ñoo xam ne dañoo xaw doy waar quand mm-hmm. parce que yaa ngi gis sànq El Hadj Malick njaay du mm-hmm. demee ci gaaru ceer yi lan lan la fa nemmeeku. Mm-hmm. ay hausse yoo xamee ni sur le transport que ça ça ne s'explique pas. te euh, loolu. genre jikko la boo xamee ni baaxul parce que à chaque mm-hmm. fois su ma yoree loo xamee ni da nga ko soxla mm-hmm. dama koy yëkkati ba ba ci kaw laxas mm-hmm. laxas si jaan loolu la ñuy faral def parce que dañoo gis ni tabaski nit ñi dañuy génn voyager lu bari ñu ne ah kon demande bi xaw ma moo gën a euh, euh, néew xaw ma offre bi ñu ne ko nan nañu yëkkati suñu prix te loolu soo ko defee euh, c'est pas éthique ba pare da ngay lor sa ñi sa askan lépp dañuy yokk c'est pareil à chaque fois suñu gisee ni que offre bi euh, bari na mm. ñu euh, supérieur la demande ils font ils refont la même chose et mm. loolu nag je pense que esprit patriotique euh, laaj loolu ñoom tamit war nañu jouer le jeu parce que dans cette histoire là ce n'est pas que le gouvernement c'est un tout tout le monde doit jouer le jeu mm. boutiquier bi ci koñ bi aussi pareil parce que boutique yi ñuy wax nii c'est vrai baax na mais xam nga proximité aussi dafa am solo. Mm-hmm. parce que à chaque fois suñu soo suñu suñu bëgg soo bëggee dem ba ci benn boutique euh, témoin euh, mm-hmm. nga bëgg fa jëndi jee transport bi ngay def. Euh, tout mm-hmm. ça loolu yëpp day répercuté waat ci ci ci trans ci kii bi ci njëgu li ngay jënd. moo tax nag boutique yi nga xamee ni ñoo nekk ci koñ yi. boutique de proximité yi dañoo war a topp. Euh, njëg yi. comme ni ñu ko fixé ñu koy ba nga xam ne ku ñëw di nga xam lu nekk lu muy jar. lu muy jar comme ça se fait dans les euh, <laughs> nu mm. grande surface. parce mm. que am na ci solo mais comme ni ñu ko waxee rek euh, yëf yi moom. Mm. c'est pas politique. nga ñu bari dañ affaire bi dañ ko jëlee yëfu politique promesse la ñu leen di teg pression y a eu cette pression là moom moo tax sax yëf yi parewul dañoo ñëw gaawantu joxe prix alors que am na ay concertation yoo xam ne ni euh, jeexagul euh, nañoo bàyyi loolu xam ne que li askan wi ñoom ñoo ko soxla ñoom ñoo bëgg euh, ñu wàññi leen dund bi te je pense que su wàññeekoo ñëpp ci mm. bénéficier ah, je pense que luñ luñ ci teq lu mu ndaw ndaw askan wi yëg ko ko ci seen gafaka ndax xam nañ ne jamono ji métti na juste exemple may joxe ñaar dërëm yi buur mu fekkee da ngay jënd téeméeri kilo par jour te am na kër yu jënd lu ko ëpp Cheikh Tidiane di nga am loo xam ne euh, weccet boo desal boo xam ne mën nga koo yokk ci reer bi du dëgg donc muy euh, euh, mesure yoo xam ne mhm. rafetlu nañ ko rafetlu nañ ko bu baax waaw ñu ñu bàyyi xel aussi ñi nekk mm. ci biir dëkk bi parce que mm. souvent aussi dañuy ay prix yoo xam ne dañ koy appliquer fii su produit bi génnee ci mm. Ndakaaru dem ci biir région yi mu gën a cher am na mburu am na ñuy wax sax naan ñu ngi koy jaayee plus de cent soixante quinze ci yenn gox yoo xam yi nga xam ne moom moo nekk Dakar mm-hmm. bokkul ak prix yi nekk dans les régions donc yi nga xamante nii moom la ñu fixé nii mm-hmm. pratiquement Dakar la gën a la Dakar la gën a intéressé mm-hmm. mais mais jaadu na mais si euh, li nga jëlee li nga jëlee Dakar war ko yóbbu Tamba ak euh, coût du transport bi et tout ça. Hmm. dafay jouer ci prix yi il y aura hmm. des baisses prix ci région yi. mais en fonction de la distance. Hmm. loolu dañ ci lañ koy évaluer. donc prix yi ñu wax nii c'est pas applicable par exemple à Kédougou ou à Tambacounda c'est applicable à Dakar mais pour les autres régions ci bés yi di ñëw dinañu xool évaluer région bu nekk en fonction des distances naka lañ koy wàññee pouvoir d'achat foofu la gën a néew que fii ce qui veut dire que nag ñoom ñoom koy gën a soxla effectivement commenté bi sept heures jot na ba tegal fukki simili ak juróom-ñett ñu jàll euh, ci un jour Sénégal